ndaje si ndaje bi nag li ko waral euh, fan yii yëpp ñu ngi woon Saly depuis altine ak suñu ay naataangoo yu jóge fii ci Afrique euh, sowu jant ak Afrique centrale nekkoon nag benn ndaje boo xam ne dañ fa doon rek dëgëral suñu taxawaay dëgëral xam-xam yi nga xamante ne jot nañ ko am ci benn concept bu bees boo xam ne lancé woon nañ ko depuis 2018 ci Johannesburg ñu koy wax right to say ci tubaab ñu koy wax le droit de dire non maanaam bëgg a wax déedéet bugg a wax déedéet euh, buñ ko waxee dañuy yaakaar ne xaj na askan bi dañuy wax toujours déedéet pour wax déedéet rek mais déet nit ki buy wax déedéet xaj na am na luñ ko bëgg a teg loo xamante ne nii mun na ko indil ay jafe-jafe ci dundinam loolu mooy tax muy wax déedéet wala ñu indi bëgg indi benn projet boo xamante ne mun na indi ay yàqu-yàqu ci nekkinam mu bëgg a wax déedéet ci loolu nag la ñu lëkkaloo ak suñu yeneen ay naataangoo def ci ay jàngat trouver ay ay plan de stratégie maanaam naka la ñuy xeexee yenn multinationales yi wala yenn projet de développement yi nga xamante ne day indi ay yàq-yàq ci dundinu askan li ñu indi Bargny rek mooy que ku xam LSD xam ko ak euh, Bargny ci centrale à charbon bu Sendou bi nga xamante ne Banque africaine de développement moo ko financé depuis 12 ans ñu topp ci ginnaaw banque bi di daw pour am ay réparation jëmale ko ci askan bi nga xamante ne ñooy subir impact négatif banque euh, centrale bi ah en 2020 euh, ñu indi beneen projet bu ñuy wax sociale yi benn nekk benn usine de sidérurgie usine boo xamante ne day defar fer ku xam usine buy defar fer xam ne mënul dëkkandoo ak ay doomu aadama Euh, rawatina ay jigéen ñoo xamante ne dañuy daan soon deel daan seen doole ngir suqali seen askan ngir dimbali seen njaboot loolu nag moo ñu boole ci li ñun nag concept depuis ñu lancé ko 2018 ñoo ngi ciy liggéey ak femmes yi ndax formé nañ ci lépp nañ leen ci lépp loo xamante ne nii day ñoŋal seen xeex lépp loo xamante ne day dëgëral seen taxawaay lépp loo xamante ne dañ ciy sukkandiku pour mun a laaj seen àq ak seen yelleef li ñuy wax multinationales yi ak banques yi rek mooy que ne bañu ñu développement ndax képp ku sañoon ay infrastructure soxaliku da fay jëm kanam mais nak boy soxali aussi na fekk ngay bàyyi xel askan wi nga xamantene ni ci ñom la projet yi di dëkkal ndax nak bo ñëwé tek ben centrale à charbon bu 29 hectares bo xamantene mu ngi lor jundi ak jundi jigen ak lu top ndax munoo won bàyyi centrale bi pour bàyyi junni ak jigéen junni jigéen yoyu ci sen épanouissement ndax nak euh, moins de euh, Xelcom du du épanouissement sax mais moins de subsistance lo xamné nit ki daf koy wara teyé pour mën a ndax ku xam Bargny xamné dañuy wax né 70 économie locale bi ci pêche le reposé wu ku ne pêche ne transformation Fi góor dem nakpi, jigen mooy transformer te lii ñuy transformer fépp ci sous région bi daf fay dem donc loolu ben activité bu ñu nyongal la activité bu ñu war a la mais nekkul activité bo xamante ne dañ ko war